ne ñu ngi koy tudd tey ci àddina bi Sénégal ku ko xamoon xam ne dëkk jàmm la woon ak dëkku stabilité fii ci Afrique waaye tey ñu ngi koy tuddee ci anam yoo xam ne neexul benn Sénégal amul télévision boo dul ubbi ba ci Japon ba ci Cambodge bu nu dul wax waxu Sénégal yàlla daf nu mayoon nu doon dëkk woo xam ne wii xëy na sunu koom-koom tolluwul ni dëkk yi nga xam ne dëkk yu mag lañu sunu population yaatuwul noonu ndax set 17 18 million dong lañu waaye suñu tur macha allah ndax suñu tradition de paix suñu stabilité àggoon na fu sore sore sore sore tey président Macky ci bëgg bi mu bëgg troisier mandat ndax loolooy ndeyu mbili gi looloo indi problème yépp tax na ba turu Sénégal vraiment gàkkal nañu ko image du Sénégal gàkkal nañu ko surtout bi ñu gisee ñi ñu tuddee nervi yi nervi nag du dara lu dul ay sambabo yi yoo xam ne dañu yore ay gànnaay di rey ay xale yoo xam ne dañuy manifester télévision yu mag yi wane nañ ko fu nekk gis ñuy wàcc ci ay pick yu weex pick yu weex yoo xam ne gis nañ ko mu gaare ci siège u parti président loolu télévision yu mag yooyu ñoo ko wane mu wër Sénégal yépp ba fukki bakkan ak juróom benn ci li ministre de l'intérieur wàññi Amnesty International ne ñaar fukki bakkan ak ñett rot nañ ci image yooyu def tuuru Sénégal kon président Macky Sall gàkkal nga image u Sénégal ndax lii du Sénégal bëgg troisième mandat nag mooy ndi li ay manifestation suñu doom yi ñu leen di boobu bëgg éliminer ay candidats jaarale ko ci justice presse bi aussi ñu sonal leen ba ci tëj ay station de télé nga yebal say ministre xam naa ne sax ba nga leen di yebal da nga leen a puus ndax premier ministre moom duñ koy faral di dégg moom la mu jàpp ne primature mooy da ngay noppi ne ciel rek primature yu ciel daal moom la jële waaye xam naa bii moom dañ ko naan yow mii fa nga dem taxaw nag wax wax jam lam ca wax sax bëriwut waaye boolewuñu ci sax benn yërmande ca nañ doon waxe benn yërmande ay xale yoo xam ne ñun ñii suñu ay maroomu doom lañu pour ñenn ñi mu mat leen sët xale yi uh, lor seen bakkan nañu doon waxee vraiment li ñuy xaar ci ñoom ak ci président de la république mooy d'abord ñu massawu famille yi nga xam ne seeni doom loru nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ba ñuy wax am na ci ay waxu tubaab fanfaronnaan maanaam ñi tudd yi dañoo bëgg a wanewu rek waaye ñi tudd yi lanu bëgg mooy ñi reylu xale yi ak ñi leen rey ñu indi leen ci kanamu yoon kon am na nooy waxee rek sax ci question yooyu war nga cee boole tuuti tuuti yërmande ndax famille yu bari tey ci tiis la ñu nekk ci gone yooyu nga xam ne seeni wayjur amoon nañ ci ñoom yaakaar tey ñu boom leen ñoom nag ba ñuy waxtaan wax nañ ay force occulte kooku boo koy faram ci wolof mooy maanaam ay sàmba booy yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge jogoon nañ jotoon nañ ko wax nag 2020 li ma ci jaaxal mooy bu fekkee ne da ngay wax yi wax sàmba yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñetti at mënoo leen a gis mënoo leen a jàpp xamoo fu ñu nekk kon ñooñu matewuñu li ñu leen dénk kon ku ne rek war ngaa tiit ci sa ku ne war ngaa tiit ci sa ngay tudd ay force occulte booba ba tey télévision àddina bi wane leen gis ay oto yu weex yu gaaree ca buntu parti yu président la république gis leen ñuy yéeg ci ay camion ne ci weti ay force de l'ordre te kenn mënu leen a arrêté kon ñooñoo nga xam ne moom la ñu dénk suñu sécurité war nañoo tekki seen domb tànk ka leen jiite des premiers ministres te ko ci suuf ñu ut ñoo xam ne ñii mën nañu assurer mën nañu assurer kaaraange war nañu mën a assurer kaaraange wu Sénégal. li nga xam ne nag mooy mooy li ci ne mooy ñu ci bëri ci sénégalais yi muy fii ci diaspora bi. ñoom it dama lay di saluer ci seen taxawaay fu ne manifester nañ ko fu ne fu ne manifester nañ ko lu ne ñu ngi koy def te pourtant ñoom ña nga ca fa ñu ne di daan seen doole bëgg lu baax pour seen réew bëgg aussi seen réputation réew réputation bi nga xam ne président Macky sàll gàkkal na ko ndax lii yépp li ma ko waxee bëgg troisième mandat moo ko indi kon ñun ñépp vraiment am nañu kersa bi nu gisee vidéo yooyu nga xam ne presse internationale bi moo ko wane waaw bu fekkee ne du dëgg lu nuy xaar pour porter leen plainte xam nañ lu ñu tudd xam nañ fi ñu ne nañ leen porter plainte waaye porter leen plainte yéen ñii nga xam ne ñun ñii ñoo bokk nekk Sénégal moo gën a yomb ak i tëj télévision kon presse sénégalaise journaliste sénégalais ba ci presse en ligne bi maa ngi leen di encourager ngeen continuer doon ay jàmbaar ci lii ngeen di def parce que sunu constitution daf ñu may droit à l'information ci yéen lay jaar ngeen déggu li nga xam ne nag moom la ñu gis tey mooy xoqatal presse xoqatal opposant xoqatal manifestant ñu ngi leen di encouragé di encouragé groupe Walfadjri bi nga xam ne tëj nañ ko sax moom parce que nag président Macky Sall mënta tëj télé yëpp mënta tëj rajo yëpp mënta tere aussi jéem na ko sax internet bi ñu bloqué ko loolu kenn mosu koo gis ci pays boo xam ne bii démocratie fi nekkoon 2011 def nañ fi opposition ba président Ablaye Wade jóge fi kenn mës ta coupé internet mës ta coupé wuñ internet coupé wuñ téléphone arrêté wuñ journaliste ki nga xam ne nag moom bëgg naa ko tudd aussi ci mbir mi te toogoon foofa ca seen conférence de presse bi. xam ne moom dañ leen dañ leen ko ordonné ñu ci bëri sax moom xam naa ba ñuy dem moom daanaka ñu woon ci seen coobare bopp waaye seen patron moom moo leen ne ay cale aco ko waxee président premier ministre moom du ngeen ko yéen yi du ngeen moom lu yëf yi gën a sedde rek mu gën a kile noonu ba kenn du ko remarqué ba ñu naan premier ministre am na Sénégal moom boobu mooy style waaye bii xam naa patron daf ko ne ay ci jiitu ki nga xam ne moom laa ciy tudd nag muy maître Sidiki Kaba gi tax ma koy tudd moom dafa doonoon ab jàmbaar ci défense de droits de l'homme ba muy bokk Amnesty International ñu bari ci yéen juddoogu leen ndax 1979 la woon ñeent fukki ak ñett ci ginnaaw mu jiite woon fédération internationale des ligues des droits de l'homme juróom benn at kon kooku xam nga ne taxawaayam ci droits de l'homme kenn naataable wu ba ñu dénkoon ko kuréel international bu mag boobu kon ma koy laaj si Sidiki Kaba du ma ne sax le ministre waaw boo tëddeeg sa njaganaay sa xel wala sa conviction du lay ne këpp këpp këpp nga jógaat toog yow mi nga xam ne lii ñuy jooy xeex nga ko ci àddina bi yépp lu ëpp ñeent fukki at poste jaru ko position jaru ko alal jaru ko man de bu ma doon yow danaa teg yépp foofu xalaat la nga xam ne moom laa doon laa dédié woon sama àddina yépp muy xeex violation des droits de l'homme gouvernement bii nga bokk tey ci violation flagrante des droits de l'homme la nekk loolu alal jaru ko poste jaru ko privilège jaru ko monsieur le ministre de la justice bàyyil ñii ngay xoqatal sa personnel bi nekk justice am na ñu ci ànd ak yow am na ñu ci àndul ak yow seen position may na leen ñu politique parce que droit constitutionnel la maa ngi ci avec benn xale te am am na yóbbuwuñ ko rek dans une zone neutre bu ñu ko yóbbu woon kaw euh, maatam lañ ko yóbbu am na signification bàyyil xale yi ngay xoqatal bàyyi leen ñu def seen liggéey tant que amul loo ko reproché ci wàllu liggéeyam bàyyi leen ci seen place du première fois ma nekk naa ministre de la justice am ay désaccord ak magistrat am désaccord ak ak ak ay personnel judiciaire waaye du noonu lañ koy faje régime jaay doole bi ñu nekk loolu kenn du kenn du ko nangu monsieur le président de la république jël ngeen seen conférence de presse bi ne waaw ñuy wax affaire u yi dañuy wanewu rek nit da ngay ànd ak yërmande ci sa ci say kàddu ñuy wax CPI li nu bëgg mooy xale yi nga xam ne boom nañ leen yéen ngeen ne fukk ak juróom-benn lañu amnistie ne ñaar fukk ak ñett lañu ñu xam ñana leen boom ak kan moo santaane action yoo xam ne ci lañ ñàkkee seen bakkan kon loolu boo ciy wax na ciy ànd ak dal ànd ci ak yërmande xam ne moment bi ngay wax am na ndey yu ñàkk seen doom ak i bàyyi yu yàq seen doom ak i mag ak rakk. yoo xam ne ba tey ñu ngi ci tiis CPI ñuy tudd Sénégal di tudd CPI rek gàcce la Sénégal moo njëkk a liñ naan statut de Rome dëkk yi cent quatre-vingt-quatorze dëkk leen Sénégal moo njëkk a jóg signé statut de Rome bu cour pénal international fa la ñu yóbbu woon ñi dul suivre droit ñoom it Gbagbo ñoom seen ñoom Milosevic ak ñi nga xam ne ñoo jàmbaarlu woon ak seeni sit concitoyen di leen rey Sénégal njëkk a traité boobu ngeen ne way ñuy wax dañuy wax rek waaye ñu tudd Sénégal tudd yi rek déjà gàcce la ba noppi nag li CPI yi lañu ca wax statut yi ngeen wax mooy dëkk ba ñaaw teef ya amee maanaam xale yi ñu rey bu gouvernement ba jëlul matuwaay yi pour ñu xam ñana leen rey ak ñana santaane procureur bu yi war naa mën a jóg sol dàllam def enquête dal di wax ñi nga xam ne ñoom lañu war a jàpp pour loolu moo tax ngeen dégg Sénégal ñu ne bëri rek ñu ne dinañ enquête waaye enquête du wax rek enquête danga koy jëf enquête indépendante lañu la ñu wax te tegagu leen ci benn jéego kon moment bi ñuy wax te militant droit de l'homme yi di dajale preuve war nañ mën a am plainte yoo xam ne yi procureur bi day ñëw def enquête loolu mooy li statut de Rome yi wax loolu xam nañu ko sénégalais yi aussi ñu xamee ko noonu parce que tegagu leen seen gouvernement tegagul benn jéego loolu am na solo gaaw ngeen nag pour jàpp euh, manifestant ak yéen ñi seen journalistes yi waaye ci li ngeen gaawul moo ma jaaxal. mille milliards Covid yi ba tey benn empressement amu ci waaye xale ba bind ci page Facebook am ak ne d'accordu ma ak nangam nangam mën ngeen a dem ba ca ron lalu yaayam génne ko fa yóbbu waaye ne woon naa leen mille milliards yi du gaaw gaaw de ndax ka ca biir premier premier goro de la kooku moom mbiram du gaaw dinañ annoncé rek mooy lii ngeen wax enquête. su ngeen ci jëlul ay jéego yu sérieux procureur de la CPI am na capacité pour war a mën a autosaisir ñëw ñu seet fii ñan ñoo leen ko sant nag ndax image yi leer nañu naan nang du ay wax rek de mille 2021 loolu la loolu la loolu la maître Sidiki Kaba waxoon ana enquête 2021 bi du ay ay ay am na ñu ci de da ngeen a gis résultat wu enquête ba ba tey bii yoon nag du du demee noonu bii yoon dañuy boolee ñi nga xam ne boobu nañ leen deux mille vingt et un ak ñii nga xam ne deux mille vingt trois su ngeen ci jëlul ay jéego le procureur va s'autosaisir xam ngeen loolu. Sidiki Kaba qui est un militant des droits de l'homme qui connaît très bien le statut de.